courant amuñu ko. te euh, insécurité ci àll bi. moom na manqué na fi carrément ñun li ñu fi dal mosul dal région de Thiès yëpp mosu fee am leen la fi mës a am nit ñu fekk ko ñu rey ko sànni ko fii leen la mës a am te ba tey ñun dégguñu ci dara amuñu ci dara lu ñu reer ba tey amul amul lenn luñ ci dégg mu nekk lu ñu metti suñu sam benn rakk bu jigéen waaw ba tey dégguñu dara élève la woon mi ngi doon def quatrième war a def compo lundi àjjuma ñu def ko loolu ba tey ji dégguñ ci dara amuñ ci dara lu ñu leer daaw ba tey waa am na at ak ay mois moom daal dañ ko woo ci kër gi mu génn dem ñëwaatul ba niwam la ñu gis amuñu fan la ci kër gi daal la génne ñu gis ko fële ci wetu forêt bi ñu sànni ko foofu waaw booy dem manque sécurité waa ak lëndemaayu dëkk bi moo indi loolu mu nekk lu ñu metti nag lu ñuy jooy ba tey dañ ñoo war a jàppale yëf yooyu mu leer ba tey amuñ ci ñun lu leer waa